dëgg la mais jigéen moom. allah kulli maanaam fukki at ak ñett bu fukki at ak juróom fukki ñett ba fukki at ak juróom. dëgg la foofu faw nga am ndey ju waggara waggara waggara wagar wa mhm. ndey joo xamante ni bii day am sa jot du la may dara. Mhm. mais des fois nag. Mhm. yàlla nattu la nga am ndey jur bu waggar boo xamante ne bi da ngay foog ni bugg la danaa bañ fekk booba lam lay waxal lépp sa jàmm yaram. mënagoo koo xam. mënagoo koo xam dafay am foo toll âge yu jànko. Mm-hmm. mbaa adolescent bu góor waxambaane. Mm-hmm. luñ la wax da ngay foog ne kii da laa bañ. Mm-hmm. dal nañu ñun ñëpp. waaw nga toll benn moment de ta vie boo xam ne boo gisee ku la teg toujours mu critiqué la critiqué la naan daf maa bañ. alors que sa réussite rek la bëgg. sama doom daf ma ko wax baal ma ndey. caat ngóone caam sa doomu ndey. ngóone. daf ma ko wax mu Adja Ngoné Gueye tubarkalla ma invité ko pour mu togg macha allah émission togg bi mhm. marché jooda bi mais xam nga lan la ma wax mhm. ne ma man bi may bi may jànq dama foogoon ne bi may nekk xale ba ni may jànqoo mhm. dama foogoon ne sama yaay daf ma bañ dégg nga pour man sama yaay rek mooy sama noon ci àdduna nekk sama yaay rek ma bëgg dégg nga loolu parce que nag ku sañoon tey sa dooma lay gën dëgg la ku sañoon tey sa doom moo lay gën mais tey ji xale yu bari nag xamuñu loolu. bari na si tegee par choc. Mhm. dañ naa sama yaay daf ma bañ wala sama papa daf ma bañ. buy xam ni ko waxatee euh, nag wékk na doom jawaaye waaye bañu ko. dëgg la ñëwal nday mhm. <laughs> waaw mu doon loo xamante ni bii mooy comme li ma wax rek faaw nga am wayjur bu wagara wagara mhm. wagar nga mën a mucc parce que xale yu góor yi léegi saay-saay nañ saay-saay goo xam ne boo deful attention dañ lay ronqat dëgg la ronkat ah, ñëw na ci démb yaay. dan lay ronkat. nga luy ronkat xamun waja bisimilah ah, déet ah, moom moom kon ko bàyyi mu wax ronkat xale góor yi. saay saay nañ saay saay goo xam ne. dan lay ronkat. nu lay ronkatee dan la xaaral duma ko ci dugal ci bunt bi laa koy teg xaaral. dafal te xamuñ ne fo bu bëri day yàq jigéen. oh am na fooy fo. teg tegale yooyu. non non am na fooy fo sax ba egg fa. Mm-hmm. maanaam. parce que. maanaam joué bu ëpp daal. maanaam joué bu ëpp ba léeg-léeg nga yëg sa bopp. ah kay joué woo da nga da nga dëggantaan. non non xanaa xamoon nit mën naa yëg boppam te te te fekk booba euh, egguñu ca kawam. Mm-hmm. Ah. waaw. Hmm. mooy maanaam médecin bi démb dégg naa ko mu wax sage-femme dégg naa ko démb moo ko mu naan préliminaire. am na ñoo xamante ni bii. am na ñoo xamante ni maanaam si seen pile ci leen léwtoo googu noonu mm. am njaay indi jóob jooju ñuy def noonu mm. am am am sekk indi jaw am sekk indi géey googu waaw waaw am non man comme man jaw laa sant ma jël laal sekkeen ya géey am sekk indi am sekk indi géey eh, <laughs> dee dafa juum am sekk indi jaw jooju noonu ba ba kooka dañuy egg dañuy mujj gi nag ba egg foo xamante ni bii tubaarkàlla duñ ko bëgg suyete wuñ ko waaw léegi nag fur et à mesure nag nga tàmm loolu. xam nga lu ah. tax ñuy yegg foofu. Mhm. fa ngay waxee ñoom ci lañ naan coppet sa ween sex ko sa àdduna tukki. <laughs> maa la wax lii sama yoon la yaay ma ne egg ba foofu de. ah kañ non ne. préliminaire la xaw ma. <laughs> ma ne avant ñuy def yooyu fa lañ naan coppet sa ween sax. bu ko defee sa àdduna tukki boo njëlee nooy amee. waaw léegi nag yaay ñu ñëwaat tuuti bu ko defee ñu ñëwaat nday ci tuuti ci. est-ce que xale bu jigéen war naa seeti xale bu góor. ba muy nàmp ba muy nàmp. c'est pas normal. c'est mauvais. Hmm. waaw waaw euh, nañu bañ a na nañu joxe conseil boobu. na <laughs> yeggale ko pare maa ngi ñëw xaaral sama kër ay waay ay waay mère Mbaye mu daaj ci sama yaay ji. <laughs> ndax lu ne xaj na ci nag. man daal yaay dama laa bëgg. maa la raw maa la raw man su ma màggee yàlla naa mel ni yow. waaye man mi maa leen bëgg. tabarkàlla yaa ngi dégg lu ne xaj na ci. nga dajante koo xamante ni bii. manaan la déet du loolu kaay am sekk indi indi indi gay ba ba nga nekk lépp. Mm-hmm. te xamuñ ne po mu bari moom dan naan ah dan xoolal dañuy dem nag daan ne fagam toog mm-hmm. naan ne moom man defuma dara de waaye de xam nga fekk booba yow yàqu nga bu yàgg ca démbi daaw yi deseetoo dara deseetoo dara nga toog nag sa jëkkër ñëw nag man ngaa nekk mën ngaa xat sax non mën ngaa xat sax te fekk ndaw ga ñu soxla ci yow lekkut loolu la sama papa Baba Ndiémé Pape Omar maa ngi koy nuyu au passage mi ngi naan mm-hmm. bari na ci ñoo xamante ni na leen yàlla bindee ñu nekk ay jigéen euh, dañoo élasticité mm-hmm. cela veut dire seen borom kër mën na leen a jël te duñu sañee mm-hmm. loolu li koy indi nag mooy ñooñu la ñuy wax ni xëy na judduwaale wuñ ko est-ce que xam nga ne am na ci ñoo xamante ni ni leen yàlla bindee mën ngeen a ànd ak ñoom ba fàtte seen sax li nga xamante ni mooy seen hymen soog a génn léegi nag mu ñëw ci ne man bopp bu vierge te te la war a vierge vierge vierge ma am na ci ñoo xamante ni nee nañu euh, maanaam bopp bu vierge ak euh, lépp vierge moo ñu gënal waaye tamit yow nga xam lépp loo xamante ni jëkkër ja sax amaana xamu ko lan moo fi indi divorce précoce yi fii ñu yi fii am cela veut ki nga xamante ni moom ngay sëyal xam na lu mu xam yow loo xamul mm-hmm. mi ngi mi ngi mi ngi yow la nga xam moom mm. mënu koo xam mm. ndax am na góor yoo xamante ni ñu baal ma ba tey nanduñu mm-hmm. cest à ay nandite du ñu ay nandite quoi parce que dañoo amuk taalibe dañoo yaru yu ci bëri mm. dañ leen koy expliquer non kay yaay du ñëpp ñoom ñoo mel noonu am na góor yu sell ah. déedéet ma d'accord am na góor yu sell yoo xam ne doguma la nanduguñu doguma la waaw dama lay nettali benn affaire boo xamante ni bii mm-hmm. sama benn yaay bu nekk Angleterre moo ma ko doon nettali. macha allah maa ngi koy nuyu au passage. nee na dafa am benn femme boo xam ne dafa jóge fii Sénégal jëkkëram yóbbu ko bitim réew. d'accord bi mu ko yóbboo bitim réew. nee na mu dem commencé am ay fréquentation am ay xarit yu bees. léegi xarit yi nag bu ñu toogee dañ naan sama jëkkër dafa may lii dafa may laa dafa may lii dafa may laa moom nag mu dem këram attaqué jëkkëram. dégg nga ne ko léegi danga may saxal sama aroy loolu moo tax sëyam jëkkër ji ne ko man sama làmmiñ bi may tudd yàlla di ci tudd yonent bi duma ko duma ko teg ci sa araw awra wi loolu moo tax sëyam te pourtant ñoom ñaar sëy nañ fii Sénégal ba am fi ñaari doom mu dem ba foofu proposé ko loolu des fois loolu dalay wan ne la des fois àndandoor dina la dugal ci loo xamante ni bii bëggoo ci woon dugg xam nga lenn it lan moo koy indi foog ne jàpp nga waaji ci poñ ba loo ko wax bu bañee nga bañ bañ lu te fekk na te am na ci ñoo xamante ni seen diine ak seen religion parce que gis nga li mu ko wax mhm. sama làmmiñ bi may jaamoo yàlla duma ko dugal n'importe où mhm. xëy na am na nu mu ko ko doon waxee wala ñoom entre couple lépp discussion la mais àddina dara du force gis nga loo imposé def ko force caat keneen ka ko mën a def ne la force su ma nit defuma ndax àddina nag lépp dañ koy waxtaan gis nga gis nga jigéen mhm. gis nga jigéen xam nga lan la ko góor di nawee yow sëyal ba tas ñu xam ne yow mii dangaa sëy ba tas jéeg bu ne xottu nga amoo ndaw góor li muy di nawee jigéen mooy mu xam ne yow mii dangaa mës a sëy moom du xalaat ci yow du xalaat ndaw dëgg la wala mu xam ne am nga doom mhm. du xalaat ci yow ndaw mhm. mais wàllum ndaw moo nekk tasum yaakaar moo xamante ne bii góor gu ko def ku nekk du la nawloo waa léegi man gis naa benn femme boo xamante ni bii mi ngi fii nii nii nii nii nii nii mhm. li tax sëyut ba léegi loolu moo ko waral. parce que daf ne non daf ne xale bu góor bi jànq laa. waaw xale bu góor bi dem ba dara desul lu takk ci lay découvrir xam ne kii am na doom bu am 12 ans. waaw foofu laa bëgg loolu déception yaa ngi dégg muy benn ñaareel ba. jigéen muy jànq génération bi suñu rakk yi ñëw nii ñii judd deux mille deux ki deux mille un ñooñu mm. noonu mm. ñii ñëw nii nañu kepp mooy dëgg. temps dañ naan jànq amul. parce que pourtant mi ngi existé ba tey. Eh. ay jànq ñi ngi fi ba tey. Mm-hmm. xam seen bopp ay jigéen ñi ngi fi ay xale téye seen bopp ba tey am na ci ñoo xamante ne am nañu ñeen fukki at. te ba tey ñi ngi téye li li li ci wàllum jànq moomu ci wàllum jànq moomu dama la koy confirmer. waaw ah. barki démb yaa ngi may tooñ fi naan ma ku taxaw ma naan la xadi baaxum moo taxaw. waaw ah. kooku tubaarkàlla macha allah xadi baaxum sama sama cat ak sama catu moroom mat oh, laal bant macha allah ba léegi jànq la te am na lépp lu jigéen di am wallaahi macha allah mi ngi dawal oto oh. heure boo demee ci wetu yaayam nga koy fekk mu ah, ko te jëmm la ba léegi man kooku tey ku ma tegaloon kaamil tey dinaa mën a waat di xadi baaxum mi jànq la dëgg la ndeysaan xam comprendre nga ñi daan baax ñi ngi baax ba tey mm-hmm. ñi daan yar seen ay doom ci ay valeur ñi ngi am ba tey mm-hmm. mais dafa ci am ñoo xamante ni bii li li ñuy wax naan euh, xaw ma naka lii olof dina xaw ma naka la koy waxee bu ko juddoo ci kàdd bu naawul juddoo cim tàgg bu ñaaw naawul jaaxali bokkam mm-hmm. loolu moo fi jeexal di jeex léegi. Mhm. Mhm. da ngay gis ku juddoo ci kàdd bi nii. Mhm. ku juddoo ci tàgg. da ngay gis ku juddoo ci tàgg bi nii. dem ba ca taatu lingom gam nga toog fa di tàqamte ko. dëgg la akay dëgg. cela veut dire maanaam. wallaahi doo jëfee jëf fa nga. fa nga mère dafa bëgg dugg ci ligne bi. rappelé ko numéro macha allah bu wootee rek Yankooba dina ko jël. ci kàttanu suñu borom incha allah mën ngaa ngeen a àndandoo ak ba tey ci 77 883 41 83 ci émission boulevard du net. Mhm. je rappelle que tey li nga xamante ni moom lañ doon waxtaanee yaa booy muy virginité. Mhm. tey nag ñu indi ci benn wàllum euh, maanaam cérémonie. Mhm. li nga xamante ni mooy laabaan parce que laabaan nag dafa nekk réalité boo xamante ni dañ koy dund fii Sénégal mm-hmm. mu nekkoon question d'honneur ma ma rappelé ko boo xamante ni tey pour xale bi gën a xam fi mu bokk gën a xam li mu doon gën a xam li mu bëgg ñi ñi ko am daal di réussir ñu leen ñu koy ndamoo yaay nag dafa am benn euh, boo xamante ni sama papa doyen dañ ci doon waxtaan mu ne góor gu la jël nga fees dell loolu mu bari bari boo nee jàkk mu ne la jàkk wax ja day am fu mu yam waaye góor goo xamante ni dafa laa jël xaw ma nag yan condition lay doon je dama ciy boole ñi nga xam dañ leen a mës ni euh, dañ koo judduwaalewul mm. wala ñoo xam dañoo daanu def accident mm-hmm. ñooñu waxaalewu ma leen mm-hmm. waaye ñi nga xamante ni dañoo def choix ne ñoom mm-hmm. dañuy dund seen dund ba daal di waaw asalaamaaleykum nañ jël kooku ba pare waaleykum salaam waaw ah, daañu ngi siyaar bu wax ne waa plateau bi jërëjëf sëñ bi ñu ngi lay fay noo tudd ak fay wootee maa ngi tudd Mouhamed Gaye maa ngi wootee Qatar jërëjëf ana waa Qatar Mouhamed jërëjëf waaw ñu sant yàlla di leen yow Thiat di nuyu ak sa gan yi nga dalal yëpp. jërëjëf ñu ngi lay fay ñun ñëpp. Mm-hmm. Euh, thème bi ngeen di waxtaanee wax dëgg yàlla am na solo trop trop trop si jamono tey bi. jërëjëf jërëjëf kontaan nañu bu baax a baax. Euh, comme ñu waaw ñoo la gën a kontaan ñu jàpp ne daal kado kado kado bi gën a mag pour euh, xale bu jigéen war ko jox yaayam wala mu jox ko ay mbokkam defe naa kado bu mooy kado bi gën a mag mooy ndaw. Mm-hmm. dégg nga lool. Mm-hmm. macha allah kat mooy kat am ak pour xale bu jigéen bi def ko ay waajuram waaw li ngeen waxtaanee wax dëgg yàlla am na solo trop trop si jamono tey bi di ñaan rek yàlla seen site bi yàlla de yàlla jëmale ko ci kanam daal. amiin waay jërëjëf jërëjëf bëggoon nañoo xam tuuti nag. ci avantage ba ah. jërëjëf yeggaleel ñaan bi ñaan kenn du ko dagg yeggaleel. <laughs> waaw ba lépp. ba lépp. <laughs> ba lépp lu sa télé déggante bi neex ndax yow da baax. <laughs> na kii bi coow li moo waaye jërëjëf jërëjëf kontaan nañu dama ne yow tey yan avantage nga gis ci laabaan ak yan inconvénient seulement yow sa point de vue parce que day compter ndax yéen ak ñun ñoo bokk émission bi. lu am am solo la wax dëgg yàlla lu am am solo. Mhm. allo. daa mel ni déggante bi neexul de. déggante bi neexul. xam naa sûrement problème réseau lay doon. waaye euh, waa Qatar dafa sori ñu ngi nuyu waa Qatar yépp lii mooy internet ndax foo waaye mën a nekk ci àddina mm-hmm. Mm-hmm. da ngay mën a woote participer ci émission bi joxe sa xalaat seul internet a ko mën tubarkàlla mm-hmm. alors yaa booy ñu ñëw ci li nga xamante ni mooy laabaan fu ma nekkoon sax su ma juumut foo bëgg rek ñu jëm dañ doon ñëw ci côté laabaan waxuma xale yi nga xamante ni ndogal moo leen moo leen dal ndaw dangaa bon bari na fi ñoo am ndaw ñoo xamante ni la xam ña amul ndaw xamuñu genn wàll voilà xamuñu ko mm-hmm, mm-hmm. léegi nag ñu ñëw ci ci ci avantage yeeg inconvénients yi ba la ma jàppoon dem ndax appel bee ko dagg mm-hmm. euh, xel mi xaw a dem tuuti mais avantage u laabaan nañ ci wax nag nañ ci wax avantage u laabaan caat mooy dalay topp ba ci say sëti sëtaat mu nekk way wu rafet waaw mu nekk way wu rafet beneen bi mooy da ngay siggil ñi nga xamante ne ñoom ñoo la meññ muy sa ndey ak sa baay. ay waay rawatina ku la yar. ak merci beaucoup. Mm-hmm. ndax xam nga yar.